gannaaw ab sacre bu am solo bi nga xamante ni suñu gaynde yu jigéen ñi gagné nañ ko gannaaw boobule tournoi bu UFOA bañ doon jongante seeni coach bi la di Mame Moussa Cissé daal dina génne ab liste boo xamante ne ni ñaar fukk ak ñetti gaynde yu jigéen ñoo ci nekk wara a jongante lii de barrage coupe du monde bi nga xamante ni mu nga fa amee foofee ci Nouvelle-Zélande. Nous avons trois Grand Yoff Adingay, Dakar Sacré-Cœur, Kabagay Sen, Aigle de la Médina. Voilà les 23 joueuses qui vont composer la délégation du Sénégal pour ces barrages qui auront lieu le 18 février à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Moussa Cissé ba tey moom ak ay ñoñam ñu ngi daal di def seen kéem kattan ngir rek ñu gagné équipe bi di Haïti bi ñu war a jonganteel ci ay fan yu néew waaye mu ngi xam ne que nii ni moyens yëpp daal di nay disponible ngir rek ñu daal di mën a gagné seen i match yooyu lee même bu fekkee ni xaar na juróomi gaynde yi nga xamante ne ni war nañoo ñëw fii ak le 17. ñooñu dañoo am ay match seen club le 12. la date FIFA bi le 13 a commencé donc seen club yi a leen woon parce que un match yi important. am importance donc le 13 ou le 14 nañ fay jógee pour y ci le 16 man ba may euh, c'est loin mais suis ma à Nouvelle-Zélande là je suis loin vraiment c'est à l'autre bout du monde dafa sori trop déjà nous fi jógee suba si 18 heures dañuy dem fait 10 heures de temps pour y yegg Dubaï. Il y a 7 heures après 10 heures nous avons benn vol 16 heures de temps donc quasiment 26 heures nous avons voyagé. donc il faut que nous a dem pour que yi mun digérer digérer euh, euh, charge voyage parce que voyage le faire. Donc les fédération ont na moyen moyens pour que l'équipe voyage, c'est classe affaire euh, ba tey day jafe beneen bi moom mooy ñun yalla def na mën ak présidente bi dem nañ fa tirage bi gis nañ ni am décalage horaire de 12 heures de temps. Et donc, il faut que nous adaptions par rapport à ça. Donc, on a demandé à la fédération, nous maïnuko, nous dem fofu 15 jours avant pour que nous nous acclimater. discours bi xamna naa ni dina changer ndax niveau de jeu yi duñu benn waye coach nak mom mu ngi daldi xamna rek paré na ci côté bu nek wa itam dina daldi imposer puissance physique am ci yile joueur am ngir rek ñu daldi am ndam lu rëy. tay ñoo gëna a xam ni li nu football fi mënul bok ak fële déjà faté nañu li nga xamni def nañ ko démb bi nu ñëwee regroupement waxna naa leen ni tournoi UFOA bi mom jeexna té lool mo doon sama discours ak ñom su féké ni vraiment mënu mënuñu gagné Sierra Leone gagner euh équipe yi ñu dajal fofu jarul ñu dem barrage tay on est le Sénégal dañu nekk ci ben dynamique du xép nit ñi mais ñun ñoo yégué suñu niveau fo xamni tay tey bu ñu élevé suñu niveau waru ñu taxaw ak équipe yooyu et vous souvent de manière poussive ces match mais vous nous avez deuxième mi-temps bu deuxième période bu vous avez deuxième période, vous équipe 3 4 c'est un autre niveau ñun ñoo que a niveau. ba yëkkati ko au-dessus de Haïti pour mun leen a yooyu les barrages yu coupe du monde ñu nar ko joué fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février bi ñu nekk foofii ci Nouvelle-Zélande di leen fàttali rek équipe nationale féminine bu Sénégal fas yéene jongante dëkk bi di Haïti bu ci noppee war cee jongante ak Chili ngir rek mu daal di qualifié ci biir coupe du monde. Après le beau sacre des Lyon de l'équipe nationale féminine, le coach Mamoussa Sissi a publié la liste de ses 23 joueurs en perspective des barrages de la prochaine Coupe du Monde dames. Nous trois gardiennes. Sen, Afa Dakar Sacré-Cœur, Sen, Aigle de la Médina. Voilà les 23 joueuses ils vont composer la délégation du Sénégal pour ces barrages qui auront lieu le 18 février à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Moussa Sissé et ses poulines comptent affronter le Haïti. Cependant, tous les moyens sont mis en disposition pour vaincre, même si quelques internationaux vont tarder à venir. Mais sinon, on va y aller très tôt pour pouvoir bien nous préparer, nous acclimater, avoir des jours pour nous entraîner pour pouvoir avoir la meilleure équipe possible et pouvoir euh, défendre nos, chances et nous qualifier pour la première fois pour la Coupe du Monde. Voilà un peu. Maintenant, par rapport aux conditions de voyage aussi, encore féliciter la fédération, parce que c'est vrai que le voyage est long, mais on va y aller en classe à faire. donc ça permettra véritablement aux filles d'avoir des conditions de voyage idoines ne pas être trop fatigué, ne pas être trop sollicité sur le plan physique. Le discours va être changé puisque les niveaux de jeu ne sont pas les mêmes. Sur ce, le coach Cissé se dit être prête pour la puissance physique de ses joueuses. En fait, on est, on est constant par rapport à, notre travail, on, est, on reste euh, dans notre ligne directrice. Euh, on travaille, on y va étape par étape. C'est un autre tournoi, c'est à nous d'élever notre niveau de jeu. Comme vous l'avez dit, euh, à aucun moment on ne m'a vu s'enflammer, m'enflammer par rapport euh, au résultat, Parce que moi, je pense que sur certains matchs, nous avons mis 4 buts, on avait la possibilité d'en mettre 5 ou 6. Donc aujourd'hui, euh, sur, la finale, on gagne 1-0, alors que sur les 15 premières minutes, nous avons 3 occasions réelles pour tuer le match. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a encore du travail à faire. Euh, et ce sont des jeunes filles mais moi, je ne me cantonne pas simplement sur ce qui est positif. Quand on est un entraîneur et quand on est un compétiteur, on, cherche toujours à améliorer le niveau, qu'on va vers un niveau supérieur. Donc, on, va, on va encore discuter avec les filles par rapport surtout aux choses qui n'ont pas marché. Les barrages sont prévus du 17 au 23 février en Nouvelle-Zélande. Cependant, le Sénégal affronte le Haïti. En plus, le Chili, que la chance sourit à nos lions.